liñ koy fajee jàngoro bi amagul docteur yi nag ñu ngi xeex ci hôpitaux yi di sauver nit ñi sauvetage di leen jox ngelaw li ñuy nooyee muy oxygène bi di def seen kem kattan ngir faj waaye nag balaa ngay faj ba fagaroo yàlla mën na la sutura bokk na ci li ñuy fagaroo ñàkk bi di vaccin anti mu doon ñàkk bu jafe am ndax àdduna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 Voilà donc euh, Ibrahim Diédhiou, c'était là le message du président de la République euh, Macky Sall à l'endroit du, peuple sénégalais. Il a d'abord euh, commencé par insister sur les ravages que sont en train de causer cette pandémie, le, le, le covid avec plus de 840 morts. Il y a beaucoup de théories autour justement de ce vaccin, mais le président de la République Macky Sall voulu... ngeen jot suñu vidéo nag mi wala da ngeen di abonné a xam ne dugal a xam